ngir lan du rukkoo ni dafa rukkoo ndax léegi bëggoon nga koy jàng waaye rukkoo nga kon léegi bamtuwaat bi fàtt na la ndax dugg nga ci farata kooko sajada dafay sujjóot li tarkil jahri ngir bàyyi ga mu bàyyi woon biral da ngay sujjóot ngir bàyyi ga nga bàyyi woon biral xabla salaam li jiitu ngay wax asalaamaaleykum wa li tarki sirri wala mu sujjóot ngir bàyyi gi mu bàyyi yelu baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamaaleykum sawaun moo xam kaana loolu dafa nekk minal fatihati ci fatiha bi awi suurati wala sax loolu nekk ci saar ba nga xam ne moom la waroon teg ci gannaaw fatiha wax daxaa moom dong wa man daxika koo xam ne kii dafa julli da koo xam ne kii dafa reetaan fi salaati ci julli batalat yàqu na salaatuhu jullim di julli di ree sa julli yàqu na ndax la ñuy tekki mooy yàlla mi nga taxaw ci kanamam di julli respecté wuloo ko kon julli bu àndul ak respecté ki ngay taxaw di julli ci kanamam boobu julli yàlla soxlawu ko sawaun moo xam kaana nekk na moom waa jooju di rey saahiyan dafa juum aw amitan wala moo ko tey boo jullee ree daal julli gi yàqu na moo xam yaa ko tey moo xam da ngay juum wala yadaxaku du ree fi salaatihi ci julli mi illa xaafilun lurul ku sàggan nee na ku sàggan dong mooy julli di reetaan mutalaaibun koo xam ne foontukat la wal muminu jullit bu gëm yàlla isaa qaama jamono bu mu taxawee li salaati pour julli arada bi qalbihi an kulli ma siwa llahi dafay wëlbati xolam ci leneen lu bokkul ak yàlla subhaanahu tudd naa sellam wa taraka dunia su ko defee mu dal di bàyyi àdduna wa ma fiiha ak lépp lu nekk ci àdduna xatta yaxdura ba mu mun a teewal bi qalbihi ak xolam bi jalaalu jalaalullahi màggaayu yàlla wa azamatuhu ak màggaayam ba léegi wa yartaida dafa war a lox qalbuhu xolam wa tarhaba mu dal di ragal nafsuhu bakkanam min haybatillaahi ci jëmmu yàlla ji personnalité yàlla jalla màgg na jalaaluhu màggaayam fa haadihi façon bii daal nee na salaatul muttaqin muy jullit ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla wala shay'a alayhi waaye nag dara waru ko fi tabassumi ci muuñ di julli ba mu yàgg nga muuñ nee na loolu dara nekkul ci wa bukaul xaashi'i ki nga xam ne dafay julli di toroxlu ba mu yàgg muy jooy fi salaati ci julli muxtafarun loolu jégal nañ ko ko ndax itam mënul yàq julli wa man ansata képp kuy julli ba mu yàgg nga déglu li mu taxaddisin koo xam ne kii daf doon waxtaan nga déglu ko xalilan tuuti continué waat sa julli gi nee na fala shay alayhi kooku dara waru ko wa man qaama képp koo xam ne kii dafa jóg taxaw min rakaatayni ci ñaari rakaa yi qablal juluusi li jiitu muy toog julli nga ñaari rakaa war a toog taaya nga dal di jóg taxaw fa in tadakkara boo ko fàttale ko qabla an yufaariqa al arda li jiitu balaa ngay tàggale kook suuf si balay sa loxo bi ak say óom gi tàggale kook suuf si moo tax mu ni qabla an yufaariqa al arda bi yadayhi wa rukbatayhi balaa muy tàggaloog suuf si ci ñaari loxoom ak ñaari wóomam su boobaa rajaa dafay delluwaat ilal juloo si jëm ca toogaay ba su boobaa nag wala sujuda alayhi war a waru maanaam sujud waru ko wa in faraqaha bu fekkee nag dafa dem ba loxo yi ak tànk yi ak óom yi tàggatoo ak suuf si mu fàttale ko ne man kat dama waroon a toog ma jóg taxaw suuba nee na tamaada da ngay continuer jóg taxaw wala mu yarji dootoo del suwaat di jéem a toogaat wa sajada waaye su paree dafay sujud qabla salaam li jiitu muy wax asalaamualeykum wa in rajaa bu fekkee dafa del siwaat toog baadal mu faraqati gannaaw bu loxo yi ak tànk yi tàggatoo ak suuf si mu dal di jóg toogaat del siwaat wa baadal qiyaam wala gannaaw bu mu jógee taxaw saaxiyan moo xam mu tey maanaam mu juum aw aamitan wala moo xam mu tey ko saxaat su boobaa itam baax na salaatu fu julli moo xam nga dellusiwaat wala moo xam sax nga continué waat nee na loolu ci defit sa julli gi baax na waaye nag wa sajada kooka dafay dal di sujjóot baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamaaleykum wa man nafaqa képp ku wal fi salaatihi ci jullim gi ngay julli di wax ëf saahiyan moo xam mu jamaj juum sajada dafay sujud baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamualeykum wa in kaana bu fekkee nekk na aamidan ni moo ko tey nag batalat yàqu na salaatuhu jullim di julli di wal di julli di ëf soo fekkee teyuloo ko baax na waaye su fekkee yaa ko tey nag sa julli gi yàqu na wa man atasa kuy julli ba mu yàgg mu tisli fi salaatihi ci jullim fala yastaqil dootu soxla woon ak bilhamdi di wax alhamdulilahi rabbil alamin jaratu ko wala yaruddu ala man shammatahu ngay julli wax tisoo li waxuloo alhamdulilahi nga am ku wax ne yarhamukallah wala yusammitu aatisan kooku itam dootoo ko dellu dootoo ko waxaat yaxfirullahu lana wa lakum wala yusammitu aatisan bu fekkee yaa ngi julli nit tisli dañ di wax alhamdulillah loo ci jar nga naan ko yarhamukallah waaye nag fa in hamidallaha su fekkee da nga tisli ba pare ci julli gi wax alhamdulillahi rabbil alamin fala shay'a alayhi dara nekkul ci ndax itam tudd yàlla la wa man tasaaba képp koo xam ne kii nag dafa julli ba mu yàgg muy bélbali fi salaati ci julli saddafaahu kooku dafay dal di ub gémmiñam da ngay jël sa loxo dal di ub sa gémmiñ wala yan fusu nee na kuy julli du tafli illa fi sawbihi lu dul ci ay yëreem suy julli bu fekkee da nga ba daan fekkee da nga bëgg a tafli nee na da ngay tafli ci sa yëre min gayri ixraaji xurufin waaye booy tafli nag bul génnee xaraf kon da ngay yàbbi da ngay yàbbi kon bu tafli di jamono boo ko yàbbee du am benn xaraf bu génn maanaam benn lettre du génn waaye bu fekkee tafli nga woo te yàbbiwuloo ko dina am lettre bu génn te lettre boobu di génn mun na yàq si julli wa man shakka képp ko am sikki sàkka fii xadasin ci ab toj-toj aw najasatin wala sobe fa tafakkara mu dal di xalaat fi salaatihi ci jullim ji xalilan tuuti su ma tayaqana taxaarata mu mujj leer ko ne man kat am naa laab fala shay alayhi kooku dara nekkul ci wa man iltafata ku gestoo fi salaati ci julli saahiyan maanaam ci juum fala shay alayhi kooku dara nekkul ci wa in taammada bu fekkee moo ko tayya nag dal di gestoo fa huwa makruhun loolu dañ koo dal di sib wa in istadbara al qiblata au lieu que nga jublu qibla nga jox qibla gannaaw qataa salaatu kooku dafay dal di dagg julli gi wa man salla képp koo xam ne kii yaa ngi julli waaye bi ngay julli bi xariirin yaa ngi sol suwa muy soy aw bi dahabin wala nga sol or aw saraka wala ngay julli di sàcc fi salaati ci julli aw nazara wala muy xool muxaraman lu xaram fa huwa moom waa jooju aasin mooy na yàlla wa salaatuhu waaye jullim gi nag saxiixatun wér na wa man xalita ku juum fil qiraati ci jàng bi kalimatin benn baat ngay jàng ngay julli ba mu yàgg nga juum bàyyi benn baat min xëyri alquran dugal ci beneen baat bu bokkul ak alquran sajada kooko dafay sujud baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamu aleykum wa in kaanat bu fekkee nag njuumte ga dafa nekkoon min alquraan ci alquraan fala sujuda alayhi kooku dara nekkul ca illa an yataxayara lafsu lu dul nga soppi baat ba kon alquraan dañu koy jàng ci ni ñu ko yàlla bindee ci alquraan ndax jamono bu fekkee dangaa jàng alquraan bàyyi baat bi aw yuf aw aw aw yaxsudal maana wala nga changé maana bi mooy nga changé sens bi fa yasjudu kooku dina sujud baada salaam gannaaw boo waxee asalaamu aleykum wa man naasa képp ku gëmmentu fi salaati ci julli fala sujuda alayhi kooku sujud waru ko wa in saqula nawmuhu bu fekkee nag mu ngi julli waaye nelaw nelaw yu diis ba wóor ko ne moom xamatul fan la nekk aada salaata kooku dafay bamtuwaat julli ga wal wudua ak njàpp la ndax yëgut lan moo génn ci moom wa anin maridi onk ku feebar yaa ngi feebar di onk waaye yaa ngi julli di onk muxtafarun loolu yàlla baal na la ko wa tanaxnaxu xaxtandeku wala wala xàqarmeku li darura ngir xàqarmeku goo xam ne mënta ñàkk pour defaraat sa baat pour mën a jàngat alquran muxtafaroon loolu jégal nañ la ko walil ifham bu fekkee pour déggale la nag nit ñëw nuyoo nga ne uhu nit ñëw nuyoo nga ne uhu loola moom su boobaa makruhu munkarun loolu lu bon la loola moom witti nañ ko wala tabtulu salaatu waaye nag mënta yàqu julli wala tabtulu salaatu bihi waaye nag julli du ci yàqu wa man naadaahu ahadun koo xam ne dafa toog di julli am ku la woo fa qaala lahu subhaanallahi nga wax ko ne ko subhaanallah nee na kuriha loolu dañ koo sib wa saxat waaye nag wér na salaatuhu ak jullim wa man waqafa ku taxaw fil qiraati ci jàng ngay jàng ba mu yàgg nga gàgg walam yaftax alayhi ahadun te kenn gàgganti wut la taraka tilkal aaya aaya ba nga gëngee woon kay da nga koy bàyyi wa qara ama baadaha nga jàng aaya ba nekk ci gannaaw moo gën fa in taasarat alayhi bu fekkee nag jàng nga jàng nga yëfi të raka'a da ngay daldi rukkoo da nga koy dagg foofu rek daldi rukkoo wala yansuru mushafam dootu jar ngay bàyyi julli gi di xooliwaat kaamil bay na yeddeyi kaamil bu nekk ci sa diggante loxo illa an yakuna fil fatiha lu dul ne nag gag ga nga gagoon da nga gagoon ci fatiha su boobaa fala budda mënul ñàkk ne min kamaliha il faut nga mottali fatiha bi bi mushafin moo xam da nga téye kaamil aw xayrihi wala leneen lu bokkul ak kaamil ndax fatiha la fa in taraka ayatan minha bu fekkee da nga bàyyi benn aaya ci fatiha sajada da ngay sujud qabla salaam li jiitu ngay wax asalaamualeykum wa in kaana aksara bu fekkee li nga bàyyi nag ëpp na benn aaya batalat salaatuhu kooku julleem gi dafay dal di yàqu wa man fataha ala gayri imaamihi képp ku gàgganti keneen ku bokkul ak imaamam batalat salaatuhu kooku julleem yàqu na maanaam yaa ngi fii di julli yow ak benn groupe am ñëli am am am ci beneen groupe ñu nekk fële di julli ñoom itam waaye imam ba nga xam ne mu ngay jiite ci groupe ba li jum na nga toll ci groupe bi gàggante ko soo ko defee sa julli gi yàqu na illa an yantasir al fatha lu dul ne dangaa taxaw di xaar waa ji ci boppam ñu gàggante ko aw yufsidal maana wala mu yàq maanaa mi wa man jaala képp koo xam ne kii dafa tourné fikruhu xalaatam qalilan tuuti fi umuri dunya ci mbirum àdduna naqa sa wàññeeku na sawaabuhu ak yoolam walam tabtul waaye nag yàquwul salaatuhu jullim ngay julli ba mu yàgg sa xalaat dal di tourné ci mbirum àdduna ak yitte yi àdduna xel mi dem fii dem fële tuuti del si waat ci julli gi nee na sa sa yoonu julli mooy yàqu waaye nag sa julli gi ci boppam yàquwul wa man dafa al machia bay na yedey fi yaa ngi julli am na waajoo xam ne ñëw na bëgg a jaar ci sa kanam nga puus ko aw sajada ala shiqi jabhatihi wala nga sujud ci sa benn côté jë au lieu que nga sujjóot ci sa jë bi lépp nga sujjóot ci sa côté jë bi ci sa catu jë aw sajada wala mu sujjóot ala tayatin ci benn lem-lem aw tayatayni wala ñaari lem-lem min imamatihi ci kàllaam gi fala shay'a alayhi kooku dara waru ko wala shay'a dara warul ko fii xalabatil xëy koo xam ne kii koo xam ne kii waccu moo ko nopp di julli ba mu yàgg nga waccu waccu bi nopp la wal xalasi wala nga gàll fi salaati ci julli kooku dara nekkul ca wa saxwul maamuum yi ki nga xam ne dañu koo jiite kooku su fekkee dafa juum juum ga mu juum yaxmiluhu dina ko yóbbuwaale al imaamu imaam bi moo ko yóbbuwaale illa an yakuna lu dul nag ne dafa nekk min naqsil farida ci wàññi farata bu fekkee ki ñuy jiite dafa wàññi benn farata farata ba mu wàññi imaam bi mënu ko koy yóbbuwaaleel wa ida saha su fekkee nag dafa juum al maamuumu ki nga xam ne moom la ñuy jiite aw naasa wala mu gëmentu aw zuhima wala ñu buux ko ala rukuci ci ruku wa huwa fekk moom fi xayril ula mu ngi ci raka bu njëkk bi fa in tamia bu fekkee xemem na fii idrakil imam ne moom mën nay sujud dem dari imam bi qabla rafcihi min asajda avant imam bi jóg ci sujud saani ya bu ñaareel ba rakaa dafay sujud ba pare dafay ruku ba pare wàcc dem dari imam bi wallahi qahu mu dal di dab imam bi wa in lam yatma bu fekkee nag xemem mut ne moom mën nay rukkoo dem dari imam bi ci sujud bi ñëwaat siggi taraka dafay bàyyi ak rukkoo rukkoo nga daf koy bàyyi dal di wa tabia imamahu mu dal di def directement toppi imam gi dem fekk ko ci biir sujud wa qada waaye nag dafay dal di fay rakaatan benn rakaa fii mawdiiha ca palaasam baada salaam gannaaw gan baada salaami imaam yi gannaaw bi imam bi waxee asalaamaaleykum da ngay jóg nga indi rakaa bi ndax yow rakaa boobu faat na la wa in saha bu fekkee dafa juum ani sujud yi ci sujud bi aw zuhima wala ñu buux ko aw naasa wala mu gëmmentu xatta qaamal imaamu ba imaam bi jóg ila rakaatin jëm ci beneen rakaa ila rakaatin oxra jëm ci beneen rakaa sajada dafay sujjóot wa in tamia bu fekkee xemem na ne fii idrakil imaam yi moom mën nay sujjóot jóg dem dabi imaam bi qabla aqdi rukuuci balay imaam bi fas rukuu bi wa ila surut loolu tarakohu daf koy bàyyi wa tabia al imaam mu dal di topp imaam bi waaye nag wa qada kooku dina fay rakaatan oxra beneen rakaa ay dambali wa xaysu qada rakaata fu mu munta fayee ab rakaa rek fala sujuda alayhi kooku sujud waru ko illa an yakuna lu dul ne dafa nekk shakkan di ko am sikki sàkka fi rukooci ci rukooc gi awi sujudi wala sujud bi wa man jaathu koo xam ne kii dafa toog di julli mu dal di ñëw ci côté ma aqrabun benn jiit aw xayatun wala jaan fa qatalaha mu rey ko fala shay'a alayhi dara nekkut ci amatul sujud qabli amatul sujud baadi ila an yatula dulul ne la dafa yàgg fi'luhu rey gan ko doon rey bu fekkee da nga caa yàgg aw yastadbira al qiblata wala ba nga koy rey nga jox qibla bi gannaaw tourne jëm feneen fa innahu kooku di yaqta'u dafay dal di dagg julli gi wa man shakka ku am sikki sàkka hal huwa fil witri ndax moom mu ngi ci witar aw sa aw aw fi saniyati shaf wala mu ngi ci deuxième raka'a shafa jaalaha dafay def sikki sàkk googu saniyata shafaa mu nekk ñaareelu ra ñaareelu rakkay shafaa wa sajada su paree mu dal di sujud baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamu aleykum su ma awtara su paree mu dal di witar wa man takallama képp ku wax bayna shaf'i diggante shafaa wal watare ak witar saaxiyan te juum fala shay alayhi dara waru ko wa in kaana bu fekkee dafa nekk nag aamidan ne moo ko tey kuriha loolu dañ koo sib wala shay alayhi waaye dara waru ko ci wal masbuuku ki nga xam ne dañu koo raw in adraka bu fekkee fekkee na ma al imaam bi ànd ak imaam bi aqalla min rakaatin lu gën a néew benn rakaa fala yasjudu kooku du sujud maahu di ànd ak imaam bi laa qabliyan moo xam sujudu qabli la wala baadiyan moo xam sujudu baadi la fa in sajada bu fekkee sujud na maahu ànd ak imaam bi batalat yàqu na suluut salaatuhu jullim la ndax la mu la maanaam bi mu dabee imaam lam ko dabee matul matul matul matul rakaa kon bu imaam juumee ca ab rakaa moom yoonam nekkul ci wa in adraka rakaatan bu fekkee dafa fekkee rakaa nag kaamilatan bu mat sëg aw aksara wala lu ëpp benn rakaa sajada dafay sujud maahu ànd ak imaam bi alqabliyu maanaam sujudu qabli wa axara albaadiya mu bàyyi ba imaam bi sëlmal mu jóg indi rakaay ba pare dogo sujud sujudu baadi moo tax mu ne xatta yutimma salaatahu daf koy bàyyi ba mottali julli mi fa yasjudu mu dem di sujud baada salaamihi gannaaw bu mu waxee asalaamaaleykum fa in sajada bu fekkee sujud na ma al imam ànd ak imam bi amidan te teyu ko batalat yàqu na salaatuhu jullim wa in kaanat bu fekkee nekk na saahiyan ne dafa juum sajada dafay sujud baada salaam gannaaw bu mu waxee asalaamaaleykum wa ita saha bu fekkee dafa juum al masbuuqu ki ñu raw baada salaam gannaaw bu ñu gannaaw gan maanaam baada salaam gannaaw bu ñu sëlmale baada salaam yi imam gannaaw bu imam bi waxee asalaamaaleykum fa huwa moom kal musalli dafa mel ni ki nga xam ne mu ngi julli wahdahu moom dong wa ida tarattaba ala al masbuqi baadiyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi dañ laa raw waaye nag am na sujudu baadi goo xam ne yàgg imam bi yéena ko bokkoon nga wëlbatiku yow ci sa bopp am sujudu qabli boo xam ne yow maanaam yow ci sa bopp yow la yow la concerné ajzaahu dina ko doy al qabliyu sujudu qabli gi nga xam ne moom la waroon a def kon na sujjóot sujjóotu qabli mu yóbbuwaale sujjóotu baadi bi nga xam ne moom la waroon a def ak imaamam bi wa man nasiya ku fàtte rukoo a rukoo wa tafakkarahu mu wëlbati ku fàttale ko ku fi sujjóoti ci sujjóot rajaa dafay delluwaat qaa'iman jóg taxaw wa yustahabu dinañu sopp lahu ci moom an yuida mu bamtuwaat shay'an dara min alqiraati ci jàng bi war ngay jàngat dara su ma rakaa su paree mu daldi rukoo wa sajada mu sujjóot baada salaam gannaaw boo waxee assalaamu aleykum wa man nasiya ku fàtte sajdatan waxidatan benn sujud wa tadakkaraha mu wëlbati ku fàttaleku ko baada qiyaamihi gannaaw bu mu jógee rajaa dafay delluwaat jaalisan di toog wa sajada mu su ko defee mu sujud wa sajadaha mu sujud ko ila an yakoona lu ne dafa nekk xat jalasa ne toogoon na qabla alqiyaam li jiitu muy taxaw falaa yuiidu waaye nag du bamtuwaat aljulo sa toogaay ga wa man nasiya ku fàtte sajdatay ni ñaari sujud xarra dafay rot saajidan di sujjóot fàtte nga ñaari sujjóot boo ko fàttale ko waddal nga dem sujjóoti walam yajlis te nag du toog wa yasjudu su ko defee mu dal di sujjóot fi jamii daalika ci loolu yépp benn bu ci na mën nga ci sujjóot baada salaam gannaaw boo waxee asalaamaaleykum wa in tadakkara bu fekkee dafa fàttaleku as sujuda sujud baada rafi rasihi gannaaw bu mu yëkkatee boppam min rakaati jëlee ko ci rakaa bi allati taliha ci raka bi nga xam ne moo ci topp tamaada dafay continue ala salaatihi ci jullim bi walam yarji du del siwaat wa alxaa su ko defee mu dal di sànni rakaata sahwi rakka bi nga xam ne moom la juumee woon daf koy sànni wa zaada mu dolliwaat rakaatan beneen rakaa fii mawdiiha ci palaasam baaniyan dal di ko ko tabaxee wa sajada mu dal di sujud qabla salaam li jiitu muy sëlma wa in kaanat bu fekkee dafa nekkoon minan uula yey ni ci ñaari rakaa yu njëkk yi wa tadakkara mu fàttaleku baada aqdi saalisati gannaaw bu mu fasee rakkaam ñaareel bi wa baada salaam ak gannaaw bu mu waxee assalaamu aleykum wa in lam takun min al uula yeey bu fekkee nekkul ci ñaari rakaa yu njëkk yi aw kaanat minhuma wala mu nekk ci ñoom ñaar wa tadakkara mu wëlbatiku fàttaleku qabla aqdi saalisati gannaaw bu mu gannaaw bu mu fasee rakkaam ñetteel bi li anna suurata ndax aw saar wal juluusa ak toogaay ba lam yafuutaa ñoom paase wuñu wa man sallama ku sëlmal shakkan ngir am sikki sàkka fii kamaali salaatihi ndax julli mat na wala matul batalat yàqu na salaatuhu julli wa sahwu juum fi salaatil qadaa'i ci julli boo xam ne ji da nga ko doon fay ka sahwi fi salaatil adaa'i moog julli farata ñoo yem wa sahwu juum fi naafilati ci naafila ka sahwi dafa mel ni juum fi faridati ci farata illa fi sitti masaila lu dul ci juróom benni masala alfatiha fatiha wa suurati ak saar wa sirri ak yelu wal jahri ak biral wa ziyaadati rakaatin ak dolli beneen rakaa wa nisyaani baadil arkan ak fàtte lenn ci ponk yi wa intaala bu fekkee dafa ye bu fekkee dafa yàgg fa man nasiya ku fàtte alfatihatu fatiha fi naafila ci ci maanaam ci naafila wa tafakkara mu fàttaliku baada rukuuci gannaaw bu mu rukuuci tamaada dafay continuer wa sajada mu sujud qabla salaam avant muy wax assalaamu aleykum bi xilaafi alfarida ci contraire u farata fa innahu bu fekkee farata la yulqi tilka rakaata dafay sànni rakaa boobu wa yazidu uxra mu dolli beneen rakaa wa yatamaada su ko defee mu dal di continuer wa yakunu su ko defee dina nekk sujuduhu sujud gi nga xam ne moom la sujudoon kama zakarna moom ñi nga xam ne ñu ko tuddee woon fi taariki sujudi ci ku bàyyi sujud wa man nasiya surata képp ku fàtte aw saar awil jahra wala ku fàtte biral awil sirra wala ku fàtte yelu fi naafilati ci naafila wa tadakkara baada rukuuci mu fàttaliku ko gannaaw bu mu rukuu tamaada dafay continuer wala sujuda alayhi waaye nag kooku waratul sujud bi xilaafi alfarida ci lu wute ak farata wa man qaama ku jóg taxaw ila saalisatin jëm ci troisième rakaa fi naafilati ci naafila fa in tadakkara bu ko fàttalikoo qabla aqdi rukuuci li jiitu muy sos rukuu gi rajaa dafay dellu wa sajada mu sujud baada salaam gannaaw boo xamee ni bii sëlmal la wa in aqada thaalisata bu fekkee dafa fas troisième rakaa bi tamaada dafay continuer wa zaada mu dolli waat raabiata rakaa bu ñeenteel wa sajada mu sujud qabla salaam li jiitu muy sëlmal bi xilaafi alfarida ci lu wuuteeg farata fa innahu moom bu fekkee farata la nag yarjiu dafay delluwaat matta zakkara jamono bu mu ko fàttale ko wa yasjudu mu sujud baada salaam gannaaw bu mu sëlmale wa man nasiya ku fàtte rukk nan benn ponk mina naafilati ci naafila kër rukkoo lu mel ni rukkoo awi sujud wala lu mel ni sujud walam yatadakkar te fàttalikuwul ko xatta sallama ba mu sëlmal wa taala te mu yàgg lool fala iaadata alayhi kooku waratu koy bamtuwaat bi xilaafi alfarida ci lu wuteeg farata fa innahu bu fekkee farata la yuciiduha daf koy bamtuwaat abadan fii ba faw wa man qataa naafilata aamidan kuy naafila ba mu yàgg nga dagg ko te tayu ko aw taraka minha rakaatan wala nga bàyyi benn rakaa ci naafila aw sajdatan wala nga bàyyi benn sujud ci naafila aamidan te tayu ko aadaha da nga koy bamtuwaat abadan ba keroog nga koy fàttaliku rek wa man tanahada képp koo xam ne kii da nga bind fi salaatihi ci jullim fala shay'a alayhi kooku dara waru ko illa an yantiqa du dul ne dafa wax bi xarfin benn xaraf wa in saxaa bu fekkee dafa juum al imaamu imaam bi bi naqsin ndax parce que dafa wàññi aw ziyaaratin wala imaam bi dafa juum parce que dafa yokk sabaxa bihi kooku da nga koy wax as kooku da nga koy wax subhanallah maanaam sabaxa bihi al maamuura bu fekkee bih bihi wala suuf wala raka bu ñetteel bi fa qum na nga jóg bu fekkee dafa ñaareel ba bu jóg di ànd ak moom illa an taxaafa lu dul ne rek da ngaa ragal aqda rukuuihi pour ne dina sos rukuu am fatbaa su boobaa na nga ko topp wala tajlis te bul toog baada dalik gannaaw loolu maahu ànd ak moom laa fi saaniyati doonul ci rakka ñaareel wala fi rabia nekkul ci rakka ñeenteel kon mbokk yi xanaa dañuy yem foofu incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu